et que nee nañ Ousmane Sonko suñu bakkan lañ ci gar ne kenn mënul fexe ba Ousmane Sonko du dem ci élection yi amul benn dëkk boo xam ne dinañ ko nangul ay élection sans Ousmane Sonko duñ ko nangu ci A A duñ ko nangu ci B te duñ ko nangu tey te duñ ko képp ku la gëmloo ni Sénégal dina am euh, euh, élection yu nit mun na nit mun a def foofu noonu ñu koy waaye émotion élection yu démocratique yu inclusive sans Ousmane Sonko kooku da lay nax kooku waxul dëgg donc ñoom lu ñu ci góobee rek ñu gar ko te lu ñu baax ñun dinañ ko ngeer incha allah danañ xam ne gëmuñu gënuñu ñu ndey te gënuñu ñu bàyyi kon soyez au rendez de l'histoire les gars chers sénégalais taxaw leen jëmmal leen seen bopp dëggal leen seen bopp waajal leen seen bopp incha allah donc demain incha allah 17h30 à Montréal di woo bépp sénégalais góor jigéen mag ndaw ñu daje 17h30 place des arts nañ manifester encore une fois nekk à côté des sénégalais dund ak ñoom naqar ak mettit ba pare xeex nag pour am suñuy justice pour am suñuy droit pour jot suñuy devoir et puis pour def suñuy ni ngi def suñuy devoir mais jot suñuy droit jot suñu àq ak suñuy yelleef donc chers sénégalais soyez prêts et au rendez-vous donc euh, voilà je pense que là là là sénégalais pare nañ ñëpp a ngi dégg sénégalais pare nañ pour le 17 incha allah di ko di dànkaafu juge yi nga xam ni magistrat yi nga xam ni sa des corrompus di leen wax ni on a repéré seen kër yi seen këru papa yi repéré nañ seen këru yaay yi repéré nañ seen kër jabar yi seen ñaari jabar yi ak seen kër doom yi repéré nañ lépp lépp lépp lépp incha allah seen adresse repéré nañ ko on l'a bien partagé avec vos photos et on vous attend de pied ferme ngeen wax fi lenn bu dee attewu leen dëgg bu dee attewu leen droit bu dee le droit n'est pas dit vous aurez affaire à des sénégalais très déterminés dinañ ko découdre ak yéen dinañ leen won ni seen ndey ak seen baay yi juruñu ñoo xam ni dañuy yàq suñu réew képp koo xam ni da nga jóg pour yàq suñu réew ñun dinañ dinañ la yàq yàq sa njaboot yàq loo bokkal ba doo yàq suñu réew ñun Sénégal ñun ñoo ko bokk te duñ seetaan benn corrompu magistrat wala benn justice corrompu wala benn juge corrompu di taal suñu dëkk bi di yàq suñu dëkk bi di yàq suñu démocratie di yàq suñu justice ba pare ne lànk ndax xaalis mu ne du wax du état de droit du wax droit le droit sera dit ou bien le pays sera mis en feu et en flamme et nous sommes prêts à en découdre avec ces bandits de grand chemin incha allah donc les gars soyez au rendez-vous de l'histoire le 17 au Sénégal na ñëpp taxaw na ñëpp génn manifestation euh, sur toute l'étendue du territoire national Sénégal ba mu daj ab kenn toog góor jigéen mag ndaw papa maire yaay di woo suñu papa yi di woo suñu yaay yi di woo suñu maam yi ne leen kaa leen jàppale seen doom yi seen doom yi comme ñun Sénégal dañ ko baaxee ñun Afrique ku jur doom da ngaa bëgg sa sa doom tekki jëriñ la ñun mënuñu tekkee Sénégal ndax ni ñuy fa justice bi ni ñuy def ndax euh, suñu gouvernement yi nit ñuy def ndax suñu njiit yi nit ñuy def donc xam ngeen ni tekki Sénégal jafe na lool te da ngay am jom am fulla am fayda mën sa métier war ko def ñu ay njiit yu taxaw nekk ay bandi ne ñoom rek a fay tekki ñoom rek ay am ñoom rek ay partagé ñoom rek ay séddoo donc nag ñu ngi leen di woo ngeen dimbali ñu yéen papa yi yéen yaay yi yéen maam yi yéen euh, liir yi bébé yeeg ñëpp ngeen indi leen ñëpp nañu génn partout sur toute l'étendue du territoire national ñu ñëw taxaw maintenir ou résister contre ce banditisme d'État contre cette malgouvernance contre ces dérives autoritaires contre ces arrestations arbitraires etc etc donc soyez au rendez-vous de l'histoire les gars pour demain inchallah à 17h30 ici à Montréal et le 17 inchallah euh, partout sur toute l'étendue du territoire national à l'international international yi ñu ngi pare fu nekk nii Montréal c'est demain góor jigéen mag ndaw ñu ngi woo ñëpp yéen ñëpp nag ñëpp am nag lu ñuy def nag ñëpp am lu ñuy def mais bu sox Sénégal soxlaa dañuy bàyyi lu ñuy def am nañu liggéey dañuy xëy di gontu ñu ngi nii doog a wàcc ñaxutoo xepp gënu leen ñu buggu àdduna gënu leen ñu tekki gënu leen ñu am lu ngeen am am nañ ko donc bu ñuy ñëw da ngeen di ñëw yéen it gënu leen ñu ndey gënu leen ñu bàyyi du ñu xeexal Sénégal ngeen toog nekk Montréal toog di talaw nalaw ak tëdd ak jóg ba pare naan da ngeen di xeex xeexu leen dara boo leen jógee pour xeex bu leen ko jaralee da ngeen di ñëw da ngeen di ñëw ne leen Sénégal jaral ne leen Sénégal jaral ne leen Sénégal jaral ñi di dañuy sacrifié wu comme ni ngeen mel da ngeen fay ñëw nit di ñëw fi ngeen yor fi ay këyit nit di yor fi ay këyit li ngeen fi mel lañ fi mel gënuñu leen nday ñee leen ñëw dee leen ñëw dee leen ñëw bëgg leen bopp bëgg leen bopp bàyyi leen seen bëgg yu nooy toog ci internet bi kese dee leen ñëw yi bépp sénégalais bu nekk Montréal góor jigéen mag ndaw boo liggéeyee 3h30 wala 4 nga taal sa oto dàqante fii la demee 17h30 incha allah. Euh, euh, euh, place des arts place des arts ligne verte bi nga ñëw foofu noonu dinañ fa dajee 17h30 dinañ ñëw leen ne leen Sénégal jaral ni ngeen bëgg seen réew bëgg leen seen réew bëgg réew si jaamu yàlla la bokk bëgg réew bëgg sa bopp mooy bëgg sa réew nit mënoo bëgg sa bopp te bañ sa réew loolu mënul nekk bëggal sa réew bu sa réew wootee nga wuyu si bu sa réew wootee nga bàyyi lépp lu nga jàppoon ñëw wuyu si 17h30 ñëpp dinañ wàcc incha allah ñi yore euh, shift matin bi dinañ wàcc di ngeen ñëw dinañ ñëw incha allah bàyyi lépp lu ñu jàppoon daw ñëw taxaw marche manifesté wu wane suñu bopp rawatina nag ñi nga xam ne dañoo dugal asile maa ngi leen koy wax yéen ñi dugal asile yéen ñi dugal asile lii marche yi manifestation yi dafa baax ci yéen dee leen ñëw de leen manifesté wu ñëw di photo di vidéo di ko jox seen i avocat bokk na day dëgëral seen dossier day wane ni sénégalais yi bu ñu taxawee di xeex yow génn nga xeex yaa ngi ci woon donc loolu dina mun a dëgëral seen dossier ñu ngi woo tamit ñëpp ñi nga xam ne dugg si nañ fii dugal asile nañ ñëw incha allah demain ci manifestation bi euh, dinañ dañ ko taxawee teewee fii nga xam ne à 17h30 moom mooy euh, place des arts incha allah. Peace and I'm out. Le combat continue. La patrie ou la mort. Nous vaincrons. Le 17, Inch'Allah. Le 17, la patrie gagnera. Tous ensemble. Pour Ousmane Sonko, pour les élections présidentielles de Kanou Peace out. manifestation yi di jël ay image képp ki nga xam ne sama xew Sénégal muy mal gouvernance dérive autoritaire banditisme d'État ak li nga xam ne moom mooy jéem a hypothéquer suñu vie suñu avenir en tant que euh, jeune sénégalais en tant que étudiant ou bien en tant que sénégalais lambda buy reyante ñu hypothéquer sa vie euh, yàq adunam bëgg xeex benn opposant politique bugg a lu leen neex ci dëkk bi maanaam amul démocratie amul justice amul liberté amul équité donc loolu ñu ngi leen di woo ci ngeen ñëw ci marche bi nga xam ne suba dinañ ko amale incha allah à 17h30 fii ci Montréal euh, place des nafa na fa ñëpp daje 17 h no na mat fu ñu sànni mbat mu takk na fees dell ñëw leen xeexal seen bopp ñoo leen xeexal seen liberté ñoo leen xeexal seen dëkk xeexal seen démocratie xeexal seen justice. donc di waaj leen màggal di leen ndamoo di leen tiitaroo di leen ah. di leen wax ni demee incha allah Montréal ah, une grande manifestation soobee yàlla à Montréal une grande manifestation demee à Montréal encore une fois les une très grande manifestation demain mercredi à 17h30 à la place des Arts ah la ligne verte place des Arts demain incha allah 17h30 ne ñëpp ñëw na ñëpp ñëpp ñëw ñëpp képp bépp sénégalais bu nekk Montréal bu nekk Gatineau bu nekk Ottawa te nga mun a déplacé wu defal tout pour nga ñëw à Montréal à la place des arts demain à 17h30 gars ñi ngi woo ñëpp ah, ñi ngi woo gars yi nga xam tam ñi ngi doog a yegg si gars yi nga xam ne ñi ngi doog a yegg si mooy maanaam euh, Euh, ñi nga xam ne ñi ngi doog a dugal asile ñooñ aussi c'est bien ngeen di ñëw ci manifestation yi c'est très bien te yooyu yëpp day wane ni Sénégal du dëkk démocratie du dëkk liberté yéen a ngi en danger moo tax ngeen daw génn réew mi daw ñëw fii dugal asile c'est très bien ngeen ñëw ci manifestation yi ngeen fay jël ay image ngeen di ñëw ci manifestation yi di jël ay image képp ki nga xam ne sénégalais nga dugg nga fi Montréal dugal fi asile maa lay wax ni loolu idée bu baax la ci yow lu mun a arranger say dossier la nga en tant que Sénégal dëkk bi nga xam ne amul démocratie amul liberté ngeen daw fa ndax fitna ndax danger yi ngeen di dund ndax mettit ndax naqar yi ngeen fay dund ak euh, mal gouvernance bu ngeen fay dund dérive autoritaire yi euh, euh, sàcc gi et cetera et cetera donc c'est très bien yéen ñi nga xam ne dangeen dugal ay këyit fii ci asile fii ci Canada Euh, rawatina nag Montréal ngeen di ñëw ci manifestation ci super intéressant et important boo leen ñëwee mun ngeen jël ay photo jël ay vidéo loolu yëpp mun ngeen ko dugal ci seen i dossier pour wane ni les sénégalais ñi ngi manifesté wu fii nii ci Montréal ñi ngi wane seen naqar seen méttit ci li nga xam ni moo xew Sénégal muy mal gouvernance dérive autoritaire banditisme d'État ak li nga xam ne moom mooy jéem a suñu vie suñu avenir en tant que euh, jeune sénégalais en tant que étudiant ou bien en tant que sénégalais lambda buy reyante ñu hypothéquer sa vie euh, yàq adunam bëgg xeex benn opposant politique bëgg a imposer lu leen neex ci dëkk bi maanaam amul démocratie amul justice amul liberté amul équité donc loolu ñu ngi leen di woo ci